mbirum ki nga xamante ne si nag moo di la Diop ba tey nag mu ngay gën a doy waar ndax moom moomee sax nag wax a jàkkaarloo ak procureur ginnaaw perquisition bi nga xamante ne si nag daan nañ koy daal def ca këram. moomu ancien directeur général bu LONASE boobee nag di Lat Diop probablement tey nag wax na daal di jàkkaarloo ak procureur financière ni tey ci alxames bi ginnaaw bi nga xamante ne si nag moo di expiration du durée de sa garde à vue enquêteurs yu division des investigations di dikk ñoom nag nañ daal di def li nga. xamante ne si nag moo di dernier acte de l'enquête ndax nak daal nañu daal def descente fa nga xamante ne si nag moo di ca kër Lat Diop pour benn perquisition te ba ñu daal defee descente nag ca këram foofee sax nag mu mel ni enquêteurs yi gisuñu fa rek benn élément ba nga xam ne mën nañ ko tekk rek ci kaw nga xamante si nag moo di Lat Diop enquêteurs yi yamuñu ca loolee sax nag daal nañuy daal di euh, convoqué wante daal di entendre ki nga xamante ne si nag moo nekkoon ancien secrétaire général de la LONASE Mermoz ak nga xam ni moo di le directeur général du bu Première Bet ginnaaw loolee sax nag ñoom enquêteurs yi daan nañ daal di saisir li nga xamante ne si nag moo di les services des impôts et ngir xool ndax nga xamante ne si nag moo di Lat Diop doon na fay li nga xamante ne si nag moo di impôt sur les taxes bi nga xamante ne si nag LONASE wax na ko daal di fay wala daf ko daal di détourné ki nga xam ni moo di ancien DG bu XBET di Mohamed Dieng moom moomee sax nag aurait blanchi ki nga xamante ne si nag moo di la Diop moom sax nag jamono ji ñu ngi koy daal di xaar pour li nga xamante si nag moo di benn confrontation moom ak nga xamante ne si nag moo di la Diop wante temps ba nga xamante ne si nag moom la amoon pour rek ñu daal di koy teg en garde à vue dañ ko yokkoon sax nag loole mu mel ni sax dafa jeex ba tax sax nag enquêteurs yi wax nañu daal di procéder ci li nga xamante ne si nag moo di à son déferment la Diop sax nag sera probablement présenté au parquet financier niki tey ci alxames bi. La coopérative Santhialmadias est de retour.